ok salaamaaleykum mbokk yi tey yaakaar naa ñu ngi fii ci Kaolack euh, tey bu ñëwee Kaolack nag yaakaar naa àdduna yëpp doo gis li fi xew tey muy ziar bi nga xam ne moo fi xew ziar général tey fii ci Kaolack euh, Léona Niassène tey nag jëmm ji ñu lool mën nañ ko présenté mën nañ ko ñàkk présenté yaakaar ne àdduna Sénégal xam nañ ko muy Cheikh Tidiane Niass doxu maam dofu maam Khalifa Niass borom def gis tey nag ñu fekk ko fii ci Léona Niassène fi nga xam ne fi la ko fi la defee lépp waaye nag bi fi soqi ko itam mu jaar daara yu bari jàng li nga xam ne mooy alxuraan jàng li nga xam mooy xam-xam ba yàlla suñu may ko li mu ko may tey ñuy euh, màggal maamam fii tey ci Kaolack ñu fekk ko ci këram war ko jox micro mu wax ak euh, dongo yi wax ak bi yi wax ak àdduna bépp yaakaar naa wax ak soppe yi Cheikh Tidiane ziar nañ alhamdulilahi waahidil ahad allazi lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad innahu min suleyman wa innahu bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi waahidil ahad allazi lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad mbokki àdduna mbokki sénégal mbokki sénégambien maa ngi nuyu ñëpp ci nuyób islaam nuyu waa aljana muy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu di leen dalal ci pays bu tedd muy xadaratu ñaseeniya buñ ne xadaratu ñaseeniya nag muy xadaratu alxaaji abdullahi ñas alkabir mi nga xam ni euh, lu njiit njàkk moom mooy njàkk ndax buñ ne diw na ñes ak koo mën a doon ak loo mën a doon moom moo tax nga doon li nga doon ndax maam alaaji euh, yoon la àdduna xam ko waaye yoon la it àdduna ñàkk koo xam ndax dama ne ku am doom joo xam ne bu ñuy bu lambi xam-xam wëree ba nga xam ne ibnu mayaaba xas na tarixa ya leetar ba ñëw jaar ci ku ne ke mujjee jaar daf ne kii de bu ko ndaamal saalum tontu kenn du ko tontu ci xam-xam parce que dafa adressé leetar bi ci xam-xam ba pare ne ku may tontu bul ma wax biir bu rëy bi bul ma xas bul ma saaga tontu ma ci xam-xam yi ma laaj dangeen ngeen ne yéen tijaan ñi wér du tijaan moo gën a for jàng alquran loolu laa laaj ngeen ko teg benn ñaareel ba mooy wérdu bi ngeen wérdu heure bi ngeen julee tegoo leen ko fenn ndax nit dafa war di xëy di uti dépassam te laa dara wala diraara nit warul lor moromu jullitam ngeen bëgg a seen biir indi ay révélation yoo xam ne ci xam-xam la ko teg te borom xam-xam la ki ko tontu kenn kese la muy xalifatul xaaji Mouhamad Niass di doom ci Alaaji Abdoulaye Niass di taawam moom ziyaare bi ki nga xam ni buñ ne adduna bi yëpp ñëw nañ dajaloo bu fekkee tarixa tijaan cent cent personnes la quatre-vingt-dix yëpp moo ko dugal ci a ñoo xam ne tudduñ leen te ñu doom Maam a yoo xam ne ñëpp ay kàngam lañ parce que wax ko ci bëccëg bi ngeen may laaj mais Maam Alaaji yëpp koo ci jàpp da yaakaar ne fii nga yem rek mooy ñëpp fekk la nga mos saako suukar bu tege la soo mosee ci bunt bi ak ki mos ci digg bi ak ki mos yëpp yëpp kenn ku ci nekk lam mos day jàpp ne maam moromam du mos loola fekk moromam it lam mos loolu la saf rek kon noonu la noonu la yëfi mel ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp ngeen ñëw ci njëriñ loo xam ne it ah ko xamoon ne doo ko tardé ku ko nag ay nit ñëw nañ fii ne ma ñii ne nañ ma dama doon ñaan lu daaw euh, jëkkër am na dama doon ñaan lu jabar am na dama doon ñaan lu doom am na ni may def mooy bu ziyaara bi jege damay dem ci xabru maam maam alaaji bi mu bokk koog taawam bu tedd bi nga xam ne moo waral ziyaara bi di maam xalifa ñes di suñu yaakaaru tey ëllëg tibb ci suuf sa rek man laay def su ma tibbee ci suuf it yëkkati àddiyee lim lañ ko war a jox teg ko fa ne ko nag bu fekkee xut bu nga waliyu nga amu ma mënu sañu yéen a am yéen a mën yéen a sañ ci seen barke laay tawasul nit ku fi ñëw ngir aajoom nara a faju danaa ko compal ci lii jox ko ko bindu ma dara nag bu aajoom fajoo bu déwénee mu ñëw bu aajoom fajuwut nag bu ñëwut déwén ci yéen la du ci man dem sama yoon li yaay def ak ñoom su ma ñëwee teg la may teg ku ñëw wax ma wax ma soxla ma tibb ci suuf su jox la na la demal boo demee sa aajo faju loolu xam nga lu koy firndeel mooy dëgg ak dëggu ak aussi tamit gëm la nga nekk nit ku nekk da ngaa war a gëm la nga nekk bi ci desit mooy euh, di ñaax taalibe yi kàddu ñax ndax dañoo nekk ci cappaandaw li taalibe woo nañ leen wuy si ngeen ñu gis ngeen ko ci conférence bi waxu luñ leen lu dul seen sëriñ waxuñ yéen poñatam àdduna autorité fi ñëw bari na kilifa yi fi ñëw bari na waaye amuñ jot fi kenn koy joxe te yàlla tax tax ngay joxe bu pour nga jox nga joxe pour ñu tudd sa tur la téye ko soxlawuñ ko lépp lu fi autorité indi moo xam ku bokk ci état la moo xam ku bokkul ci état la lépp loo fi indi rek sa morom indi na lu ko waaw lépp loo fi indi rek ab taalibi nekk na bitim réew yónne loo xam ne ni maanaam defar na defar na téeméeri bis kon loolu dérangé wut ñu dañ dañ koy wax rek pour juste ku ci déggoo sa na nga xam ne ñun noonu ñu doxee ni ñu doxee mooy képp ku fi indi dara te yàlla tax bàyyi nañ la ak yàlla képp ku fi indi dara ngir ñu tudd la dama nga xoole iblis nga ànd moom iblis mooy mooy doxee noonu ñun doxeewuñ noonu bi ci desit mooy euh, taalibe yi nañ dellu ci yàlla nañ bugg yàlla nañ xam yàlla damay dégg ñu ne bugg yàlla ak xam yàlla boo ko dëgg la yàlla maanaam tey sa soxna si nga nekk ak mën nga ko bëgg te doo ko xam mën nga koo xam te doo ko bëgg loolu yëpp ñaar day am kon yàlla it bala nga koo bëgg faaw nga xam ko xam gi moo jiitu bëgg gi après bëgg gi soog di ñëw kon nañ xam yàlla ana nan la xamee yàlla ñu ci amul ñu ci xamul farataay njàpp choses yoo xam ne nii sëriñ si tey jamono ji dañ ci lëndëmal seen taalibe yi te dafa war mun ñu leeralal leen ko ndax bu njëkk tànt bu amaan ma gàmmam laa daan laa wax de Mawlana Cheikh Ibrahima Baye Niass moo daan zikkar ak magam ju ñuy wax Chafion ak ñeneen ñu dul ñoom buñ paree mu ne ana Mohamed Amina mu ne maa ngi nii mu ne ko kuy laaj na ñëw laaj masala yi dàqante kii ne fasee jabar dem di ko jëli eddaam matut nu may def kii na su ma fasee jabar ñaari yoon ña faseem ñaareel eddaam dafa war a mat wala matut kii na su ma faseem faseem ñetteel nangam kii na su ma julee ba sa digg ba jamaj kii na su ma fekkee imaam ñaari rakk su ma fekkee imaam ñett rakk su ma kaabara dem ba ci digg bi fàtte na fàtte naa masaa sama tànk yi wala sama bopp bi wala sama loxo yi lu ma ci téere wax ñu indi xam-xamu fiq wax maam xalifa indi xam-xam tontu ne ah léegi la sa téere wax lii nangam kooku bind masala bi yóbbaale loolu lañ doon xaar ci sëriñ bu njëkk léegi nag technologique bi changé na changé boo xam ne sëriñ si amatuñ temps toog di wax seen taalibe ci yàlla di leen wax ci seen diine temps bi ñu am toujours rek li ci ëpp mooy bu taalibe bi ñëwee bu fekkee dix la yaa ngi ciy xaar kenn ki nga xam ne mooy indi enveloppe bu cent mille francs mm-hmm. ki nga xam ne cere cere la yor wala mboq wala dugub ak yu mel noonu yaa ngi ko bëgg a jël sàgganee ko te ëllëg amaana doomam mën naa màgg jëriñ la loo xam ne ni ka doon jël di ko teg si côté mënu la ko jëriñ donte moom mënu laa jëriñ loolu mm. kon nañ sóoraale yoo xam ne nii suñ maam yi moom nañu fi bàyyil tey maam alaaji toolam yee ca koosi tey ba ñeseen li leen li fa téye pour nit ñi mën faa nekk pour mën faa bay ba maam alaaji génne àdduna maam xalifa moo yoroon lépp beneen bi di wax taalibe yi ne nañ nangu ku nangu nangu loo moomut bi ñëwee maam xalifa ne darsu yi mënu ma koo booleeg leneen ana kan moo may demal koosi ak tay ba di ma di ma joxe jël darsu ba pare di toppatoo taalibe yi rakkam yëpp sëgg am ku ci ngur mu ne moom ne dafa bëgg lu yomb mënul toog ci taax mi dañu yóbbu ci àll bi bi mu waxee loolu Mawlana Cheikh Ibrahima bàyyi ba maam Khalifa dugg ci néegu biir bi mu ñëwee ne ko ñes mën naa dem mune ko ah Ibra sa dana metti de Ibra sa lañ ko daan wax dana métti de ah yow sa yaram wi yaramu buur la damay ragal doo may dem ci àll bi mu ne ko waaye boo nekkalee yàlla yàlla nekkal la mm. su ma nekkalee foofu yàlla rek amaana yàlla tàggat ma ci ñoom ba ma ma dem rek sa bëgg-bëgg day nekk sama bëgg-bëgg soo ne ko bismillah waajal ko mu dem bu demee ba am na ñu ne àllarba wala alxames am na ñu ne ajjuma la daan war fasam yéeg kurti kur njaabal ñëw ci maam xalif su ñëwee tëju ci néeg biir waxtaan ba ñibbi jot mu jëlli ñibbi waraat fasam dem noonu la nekkee nekkee fa ba taalibe yi nga xam ne ñu nga woon a Koosi ña nga woon ak ñeneen ñoom ñëpp dem ba nga xam ne miinante ak ak jëflante bu rafet ba mu fa defoon ak ñoom dem ba adhéré wu ci ñoom def ko def ko mu seen sëriñ lii moo nekkoon waaye ñaar dëkk yëpp foo xam ne mamalaaji moo ko moomoon waaye li ma wax léegi dafa nangu nangu nangu lu moomut parce que lu ñëpp bokk la waaye léegi moom kenn na ko moom ndax moo nangu moo fo nangu woon a toog ñëpp dem topp ko te kaay ma kaay ma nekk sëriñ moom amul fenn nit ki moom da koy wan lu la doy mu bañ ñëpp ñëw topp la wala nga bañ ko wañ lu ko doy mu bala fa dem xooli ñeneen lii moo nekk yëfi côté boobu kon taalibe yi it nañ xool côté booba sëriñ si it ñi war a toppe nañ toppe ji fi ngay gis koo xam ne maanaam ay magamaki ay baayam dañuy dund ëpp ko xam-xam mun a jogg ca kaw te mënu laa firil benn ponkam masala daraja topp ko gis nga daraja ak ak xam-xam ak am-am duñu benn xam-xam boo ko amee loo ko gën di joxe muy gën di dolleeku am-am boo ko amee loo gën di joxe muy gën di wàññeeku kon ñoom ñaar benn xam-xam óor booy joxe darsu di di jot masala yoo xam ne jotoo ko woon waaye am-am booy xëy di joxe da dara dugut léegi nga dem ñibbi yalwaane ci daraja nag boo ko amee maanaam li lay sonal ñett la mooy ku lay nettali sil sa noon ba nee la nangam ngay fuglu di fuññu di ut say bopp noonu wala kat benn nga xool sa mbokk yi ñi nga xam ne neexoo woo leen nga yaakaar ne ñi ñu lay ñëwal nga yaakaar ne ñi nangam bis boo leen wanee daraja joo xam ne ni yàlla may na leen ko ñoom tamit rek ñu bala bi ci des mooy am-am bi boo fa nekkee dafay safoo xam-xam ak am-am ñu ànd kon ñi nga xam ne ñu ngi ci kër yi am nañ te am nañ dimbale borom xam yi ndax li tax jamono ji xam-xam mooy ku jug ne damay uti ji si parent yi la ñu leen di ñaaxar côté boobu ñoom it li tax mooy ku am rek lañ ñu ànd ak duñu ànd ak ku amut ku jox rek a seede lañ mën a tàgg duñ tàgg mukk ku leen joxut xamuñ ne diw amut waaye nangamut ñaari nit dañuy bokk biir buñ tëdd kii am kii du am yàllaa ko dogal zalika fadlaa yuti man yashaa ngëneel la moo ko jox ku ko neex ñaari seex dañuy bokk benn benn waaroo soow buñ tëdd kii nekk millionnaire milliardaire kii nekk wëyu te tërëwul ñoom ñaar ñoo bokk biir buñ tëdd waa léegi loolu ndayama ko liggéey wala ñaari seex laa la wax ñaari seex loolu ndayama ko liggéey wala wala comme ça ndayam xanaa kon dafa am digg yum liggéey ku baax ak lu bon kon dafa loo xam ne wërsëg yàlla moo koy jox ku ko neex kon parents yi it nañu gëstu njaboot gi waaye it nañ nàmmal njaboot gi ci diine lislaam fi may tëjee mooy am na lu fi jug fan yi waxoon naa ko ci bi teg naa ko waxaat muy diggante chrétien ak ak lislaam nañu rafetal ndax lislaam bi daf fay ñëw pour rafetal ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buñ fàtte ne chrétien yi wax nañ ko léegi ca Éthiopie Abasa ba mu wàcc ñooñu fatoon ba mu méttee suñuy mbokk jul dañ ñoo dàqoon génn ñu buuru Éthiopie fat ñu ñu indil ko ay xibaar ne ko Mohamed mi ak ay ñooñam dañuy xas Iisaa buur bi laaj leen lu seen lu seen diine wax ci Iisaa ñu wax garaat yi yàlla takkal yonent yàlla Iisaa ak fa mu ko boole ci biir juróom yi nga xam ne bokk na ci yonent yi gan ñooy leen ni ngeen ko waxee ak ni ko suñ bible bi téere bi waxee amul lu ci toll ni lu ci dindeeku lu toll ni xar-xarab doj ba pare ne dindi leen jéng leen jéng wax leen fi ngeen bëgg ñu daggal leen ngeen dëkkee fa kenn du leen laal dañ leen garante waa lii ku la ko mënal ba sa diine taxaw rafetal na démb rafetalal tey ci moom. bi ci des it mooy yontu yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam Abu Talib mi ko yar. xissa xawlaa ne am na ci ñeneen nañ julit la Abbas nee na dégg na ko mu tuub waaye yontu bi nee na ko dama sukkandiku ci sa ci sa dëggu ak sa wax ndax wax yu dëkkalu ma benn ñaareel ba it ma ko ci sama sama nopp du ko seede ba mu gaañoo it bi ne da koy ñaanalil dem taxaw fa li waral tax justement ñu xam ne kon moom du julit abu euh, euh, Seydina Omar def ci xeex ak moom ne ko doo dugg ci armeelu chrétien yi dafa wax ci alquran ne képp ku gëmul yàlla ak yonentu moom te mooy yow boo dee safara nga jëm te fii boo fi tegee sa tànk yàlla dana rus ñi fi nekk ba jéggal leen te bu boobaa ëllëg waxu yàlla lay tege ko sa wax nekk dëgg kon yow doo dugg fii parce que yow foo teg sa tànk rek yàlla wàcc fa barke mu ne ko waaye dinaa ñaanal sama maam ji ma yar mu ne ko sa maam lim la yaree tey wërsëg yàlla di ko ko jox lim lim la yor tax waaye bu la yàlla ko jox wërsëg gëmal loolu ñu ñu ñu ne fa ba bëree ba borom téere yi am xawlaa ne ñii ne am nañu daan am na kuñ daan mu féetoo kaw waaye nanguwu leeral comme nangu ñoo leeral nag kon nañ bañ leeral ñu nit alxuraan wàcc ànd Omar yaa Muhammad am fu waxee ci alxuraan ci sooratu jumaa am fu mu ci lakkum diinukum waliya diin ne ko léegi ci gàttal yemal ci sa diine nga bàyyi leen ñoom ak seen diine waaye yonent bi la yàlla wax yemal ci sa nga bàyyi leen ñoom seen diine wax asantuma ñun. ñaareel bi mooy kaamil alxuraan yi ñuy jàngee technologie gi sëriñ si soxla yëpp seen programme pour mën a jàllale seen diine ku koy defar du ñu dul chrétien yi. Hmm. kan moo koy expo eh, eh, importé pour ku dul ñoom. ñaata doomi sénégalais ñoo jógee fii nekk bitim réew ñu leen mën a fay ñuy ñëw di jëriñ seen réew ñëpp dëpp nañ ne diine lislaam moom moo gën ci diine yi. Hmm. loolu moom amul faram fàccee amul benn julit bu koy wax it benn daan di la ci fekk. Hmm. julit bu ko wax daan fekk la ci nañ jàpp ko rek daan jàpp ko dóor ko muy bëgg dee xam ne du julit. waaw nag dama laa ñaan. bul toog de xas di xas diina jàmbur booy firi nag firil comme ni ko waxee rek comme ni mu leen tëkkoo comme ni mu leen xasee ku ci mer nag alxuraan wax ne dem kalaameeg yàlla mais bul indi sa waxu bopp yow bëgg leen a xasaala jaar la fa ci loo xam ne yàlla waxu ko loolu day féewale réew réew mi nag ñu ngi ciy ñaan jàmm di gërëm it autorités yi ñëw yëpp di gërëm kilifa bu yaana maar gis nañ ko léegi ñëw na ak délégation bu am solo yëkkati joxe ko donte xaaruñ ko ci moom waaye maanaam touché nañu. di gërëm président Ousmane Sonko yebal na fi délégation Pastef bu am doole bu Kaolack ñoom Mbose ak ña ca aju. ñëw nañ oo nañu téléphone it xamal nañu ne bés bi dañ koo nommé li nga xam ne mooy maire Ziguinchor mu nekk ci dernier réglage moo tax munul ñëw mais yàlla xam na ne da koo boole woon ak programme li nga xam ne mooy Porokhane bi daf ne woon su jógee Porokhane beneen programme bu muy ginaat ziare leew na la ñu nangul ko ngantam ndaxit ñun nit lañ duñ machine nit bu la waxee dang koy nangul di yaa ngi bitim réew yónnee ñu sa alal waaye duñ tuddu tur li tax ñu tudd ñaari tur yi dañoo nekk ñu siiw ñoo xam ni nëbbatuwuñ ci ànd ak ñoom ñoom tamit nëbbatuwuñ ci ànd ak ñun moo tax ñu tudd leen waaye du am am bañ ñu jox ak nangam lu may toujours rek ñoom ñëpp amul ku ñu ci jox lu ñu maam alaaji joxut amul ku ñu ci jox lu ñu maam xalifa joxut ndax ancien sëriñ doo ko dégg mukk ancien président da nga ko dégg ancien politicien ancien ministre ba ci ancien député ancien douane ancien gendarme et cetera et cetera waaye ancien sëriñ ba ancien nangam dan nga koo déggat ana Senghor doomam yi ana ana fañ ko suul nit ñaa ngi dem am Wade doomam yi da nga leen déggati Senghor Karim mii nii bu dul problème da nga leen déggati ana Abdou Diouf ana Abdou Diouf doomam déggati nga leen jeex na nag kon ana doom sëriñ Touba ana doomu Baye Niass yi ana doomu Alaaji Maalik yi ana yu maam Khalifa borom ziyaare bi jeex na kon ñooñu lu tax ñu leen di ziyaare mooy seen maam yi ak seen baay yi dañ fee loon yàlla yàlla nag ñëw ne leen danaa def seen i seen i sëtaat bu neex ak bu naqadee kuy laaj réew mi sax bu ñëwut ci yéen du faju Senghor mi nga xam ne gëm bokkuñu woon diine sax ba mu bëggee laaj réew mi dafa wër sëriñ sëp coalition ak ñoom pour laaj réew mi sëriñ si it bañ nekkee benn bëgg woon état bi ne ñun ñoo fi nekk dañoo def coalition ànd muy gaynde Fatma Mawlana Cheikh Ibrahim Cheikh euh, Cheikh Tidiane si almaktoum ak ñeneen ñi nga xam ne ni bët woon nañ ci biir te bëgguñoo feeñ jël réew mi ba pare tubaab i xeex leen joxe réew mi waaye ñëpp dëppoon nañ ñoom ñoo gañe woon réew mi waaye boobu dañ doon wan tubaab yi ne leen ëllëg def bu ngeen ñu ci kon loolu it sëriñ ñi nañ xam seen bopp nitu nguur yi duñ dara ku ci daan nguñu nguñu sa sa kër élection jot ba élection passé ak léegi gisoo leen bu ñu am sox bu ñu amee soxla rek la ñu ñëw bu soxla ba fajoo bu faju yëpp duñu leen gis nañ rafetal mbokk gi rafetal ànd gi di sant it suñ mbokki Medina yi ñëw nañ ñu ngi nii toog ak ñeneen ñoo xam ne nii Cheikh baay bi tey Cheikh Omar Niass Bakary Cheikh Baye Niass ak ñeneen ñu ma mënta lim Mame As Thiam bëri daal ñoo xam ne ni mënu ma leen lim soo mbokku tuubaay yi Baye Garas Mbacke jarbaatu <coughs> jarbaatu sëñ Abdou Karim Mbacke ñëw na waaye daf na ma damay dama lay ñaan rek mënu ma ñëw ci mbooloo utal foo ma dalal parce que maa ngi la koy ñaan ñu ut fuñ ko dalal ci moom lañ jógee léegi mu indi fi teranga ju doy wax dëgg ne yàlla teranga yëpp teranga moo ñu ci gënal ak teranga yi nga xam ni suñ mbokk yi nga xam ne jógee nañ mi dina sol seen i dàll ñëw fi yëkkati seen am ak seen doole def ci ndax maanaam sa mbokki diina jox la daf maa gënal fuuf sa mbokki àdduna jox la ndax bu la koy jox yow xam nga ne poste ba mu jógee ka la ko jox moo la ko gën a yittewoo fuuf waaye dala koo jox te yàlla rek tax ndax këram am na loo xam ne war na ko faa régler man ko faa réglé réglé wu ko fa ñëw jox la ko politicien bi wala keneen ki bu lay jox li mu lay jox sa alal yaa ko moom ndax daa fen a fen bañ jox wax dëgg ba ba loola fal ko ay taalibe ñëw ko ko mu ñëw di la ko joxaat kon loola moo ñu gën a neex fuuf la nga xam ne ay fen ay fen ci lañ ko tënk nga ñëw nar ko jox kon ñi ngi sant suñu mbokki këri diine yëpp bawuñ kenn suñ mbokki laayen dañ daan ñëw waaye ren ziare bi appel bi ñoo tombee moo tax mënuñoo ñëw ñun tamit ñu waroon a dem moo tax mënuñoo dem waaye min ka ilayka la kon bés bi lim tombee ci bés yi bari na tombé nañ si bis ñaan yàlla yu yu bëri gàmmu Nigéria gi fi nga xam ne mooy euh, ziare kokoto gi ñu ngi ci ak appel layen ak yeneen kon weer bi weeru jaamu yàlla la weeru nangu ñaan la kasu rajab gi aussi tamit ci lañ génnee ci lañ génne ci poroxaan ji kon weer yu weer la boo xam ne ku ci jógee am ci bàkkaar rek demoo ci bërëb yi ku dem ci bërëb yi ma lim doo am benn bàkkaar ndax ay waliw yoo xam ne lañ liggéeyal nañ yàlla ba yàlla di ñoom ñu far di yàlla kon nañu rafetal jikko yi rafetal ànd yi waaye nag fi may tëjee nañuy xool carte d'identité yi xool carte d'identité yi li ma ci jublu mooy date de naissance dafay naxe nañuy takki jabar te xool am na ñoo xam ne dañuy def jugement bu ko defee naan man treize ans laa am dix-huit ans laa am fekk yow sa at ngi dem rek ngay am trente cinq ans quarante ans ba dee dëkk la ñu naan ay yow dee na ndaw di fekk cinquante ans la am kon nañu xool carte d'identité yi te ba te bàyyi jugement bi waaw ku yónnu daal muy vingt ans dama nga takki xam ne majeur nga mat nga waaw jigéen ñi ku ci am dix-neuf ans amoo jëkkër góor ñi ku ci am 22 ans amoo jabar yi da ngaa lamb nañ ñaan lu ji jéem a ta jéem a takk ji waaw jéem a jéem a jéem a ah, ñun la ko yàlla defal ñun la ko kullu washrabu lekk leen naan leen lekk ak naan nag dafa am lu cay lu cay topp yàlla maam ni mu bëggee ñu takki sax bañ na ko ba commencé wut ci benn yu ñàkk fayda yi mas naa mas naa takkal ñaar jëm kaw ñëw sax naa utal benn ut ñaar mas naa mas naa waxul waayit de mas naa mas naa rek dem parce que xam xam na maanaam soxna li muy yokk ci doomu aadama kon nañ dem uti soxna waaye ñu ut ko nag fañ ko war a utee ut ñu baax ñoo xam ne danañu mën a jural ñoo xam ne ëllëg danañ mel ni mag ñun fi lim nii ñu ñuy topp la bul topp sa naf su bakkan rek topp ñi nga xam ne maanaam seen àdduna yëpp mooy nuñ naxee góor goo xam ne yor na dara ñu encaissé ko dem xoole keneen rek ci lañ ne nañ dem jàngi ponki say nañ jàngi ponki d'islam nañ jàngi nañ jàngi nañ jàngi waaye it ku ci nekk sa aada na ko na nga ko fonk ku ci bàyyi sa aada mooy ku bàyyi sa ànd ànd boo yéegati fekk fa jàmbur mu toog fa bàyyi nañ ko jéem a ñëw xam sa andi yi ñu ci ñu ngi ci làmb ji ñu ngi ci culture bi ñu ngi ci leneen lu ne ñu ngi ñu ngi ci di gëstu di xool yow lan moo tubaab bi ñoo la dàq wax olof ñoo la gën a xam alpulaar ñoo la gën a xam leneen ak leneen lu tax mooy xam nañ seen ànd ba pare bëgg ñëw yow xam sa ànd yow boo def loolu fekk leen ci seen ànd ñu nax la ci ñaar nga perte dis les kon nañ góorgóorlu ci jaamu yàlla nañ góorgóorlu ci bëgg yàlla nañ góorgóorlu ci topp yàlla nañ góorgóorlu ci xam yàlla nañ góorgóorlu ci te jiima xam kat mooy yàlla Mm. waaye ku am fula ci boppam la yàlla xam gi mu xam doomu aadama moo tax xam na ne doomu aadama su nekkee ak yow Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum dafa ànd ak Gaynde ñu bokk affaire tukki ñu liir benn livre ba ci rek am lu ko sëñ Cheikh wax Gaynde Fatma ree ba xaqataay sëñ Cheikh ne ko ah yow kon na nga mu ne ko nit laa di su ma ko bëggee sax damay te sama néeg di ree mu ne ko lu tax kon dooy ree ci peuple bi mu ne ko doomu aadama la am ñu ko yàlla bindee su gisee nga ree rek mu ñuuxu la bu dee ab taalibe bu ñëwee tey gis nga reyal ko day toog ci kaw dend ak yow day toog suuf kon bu subaa mu ut ban toog ci bu subaa mu ut sees bu gannaaw subaa mu ne la sëñ bi wàcceel ma toog mu ne ma comme noonu la nag da am matir mat gu doy ni wan leen ne leen man kenn ma caaxaan yi comme kenn du ma caaxaan yi du ma caaxaan yi kenn moo tax ma dugg ci seen reek seen kaf yi lii kese la waaye danaay yàlla nag ci loolu la njëkk xam doomu aadama ba tax mu moñaale la ne sax xaaral bi la njëkkee bind mu ne fexeet gis la oote ruux yëpp ne ballaa ballaa keroog la ko ruux yi gëj a gisit ruux yi bu ci nekk di cëpp cëpp daw engagé ji ko mu ne gis nga ñii bu ma leen bindee ñu xëy di ma gis billahi ku ci deele sa baay wala sa yaay danga takk morso yu xonq ñëw ñëw ne fee la fee may balaasu naa dem naa dem kalaame ko kalaame ko moo moo fi nangam kon daal xam naa ne may def ak ñoom muy mën a bëtu duñ ma gis léegi nag ba mu leen bë mën na bëtu bu mu ma gis mel ne aji laaj wala aji wax dafa jug ne ko ah yow boo nëbbatoo gisuñu la kon ki la bëgg jaamu nu mu lay xamee mu ne am na ñoo xam ni al xalifatul ilaahi lañ ci kaw suuf samay xalifa lañ danaa leen branché leeru ilaahi gi muy sama leer gi ngeen jokk ci ñooñu ngir ñu mën leen a xamale yéen ñi capacité ko xamul nga ne ah waaye jaamu yàlla jaamu yàlla rek audience audience la rek demal ci Macky Sall nga bind audience ma bind Aline Sall ñëw bind rakkam nga xool maag maag yow ak Aline Sall ak ñeneen ku ñu njëkk jël léegi mu gis ko ñun duñ ko gis kon noonu la sëriñ si mel boo amul xam-xam ba amoo xam-xam nga ne ah loolu dafa terre à terre ma ne la li ma waxoon ci bëccëg rek téléphone simple bu jër junne ak iPhone 13 ak fold bii génn bees da nga leen yemale pourtant pourtant su ma uyoo nga uyu de lu ma dégg ngay dégg yow simple bi waaye am na moment yoo xam ne fu ñu fa yeggee ay ñoom WhatsApp ak ay ñoom nangam da ngay toog xaar ma ba ma pare wala waxal di waxal ma diw nangam ngay dégg loolu mooy lan mooy boo amee yenn circonstance yoo xam ne ni sëriñ bi war na faa yeggale da ngay toog nga xaar ko moom mu yeggale la fa ñëwaat ñëwaat bokk ak yow nekk comme nit te fekk du ngeen kii yéen ñaar loolu mooy loolu mooy sëriñ kon fi may tëjee mooy nañ jaamu yàlla nañ bëgg yàlla nañ topp yàlla nañ xam yàlla état bi ñun la sa appel nañ dimbale baykat yi nañ dimbale baykat yi ñun ay taalibe baykat lañ am xeebuñ leen kat ndax bay mooy suqali réew nañ dimbale baykat yi nañ jënd nañ jënd gerte gi dugub ji ak yeneen prix yu baax nañ ko jënd ñu ngi koy def ci caga ji di ko def ci caaxaan yi di ko def ci ay esat di ko def ci ay yeneen baykat yi bay bay bay bay ba dee ñooy leen moo leen koo jënd yàlla yang ki wénal ay sinwaa ak i tubaab ñu jógee fële ñu war koo jënd ngeen bolaka leen ne duñ ko jënd ko loolu xañaan la du ma lekk ci bool bi te ku ci lekk ma xapp ci suuf añaan la suñ ko mënta jënd nañ bàyyi ñu koy jëndee prix bu baax ñu ñëw jënd ko baykat yi it nañ dellu bay ji ku ci nekk ndakaar wala Amérique wala France wala Europe beeg fu mu mënti doon soo amee alal dama nga tabaxee seen kër seen dëkk ñu bàyyi complexe dellu suñ dëkk yi dellu suñ cosaan yi man bërëb bu ma mënti dem boo ma tegalee bool dama lay laaj ndoxam raxasu aw ma complexe boobu saalum saalum la pure et dure ci ndey ak si bàyyi damay wax faa damay wax daa waaw daa fi ñëwoon faa fi ñëwoon naa fi ñëwoon man yooyu laa xam waaw lu dara lu lu daraja ñëw lu nangam ñëw suufu saalum si moom a gënal mboolem suuf kon ku ci nekk na la sa suuf gënal mboolem suuf soo dëkk nga tabax fa investir fa waaye nag nañ topp waajur yi nañ bëgg waajur yi. non non ñëw ma daggal Touré foofu laa bëggoon ñëw ci waajur yi parce que mu ngi woon sama dënn gis nañ ne macha allah tey depuis dem léegi dégg nga aussi tam li sa waajur baax sànq bi fa demee li mu wax mu ne da ko jëlal nag yeewal ko ba pare jox ko deux cent mille ba pare gis nañ bi sax añu kër pare da nga yëkkati ay bool yu bëri jaar ci kër xalifa yu bëri ñi say mag nga jox leen euh, seen i euh, warugar macha allah ay bool tey yëg-yëg boobu nga am ci ñoom tey ak maanaam te sa kër nga màggale mën nga màggale sa kër tibbal leen bool ñu dem mais da daal dox ci naaj tàng bi tey ku kër gu ne nga dugg fa tey jox ko bool yëg-yëg boobu tey. waaw man nit mën naa am lu ne waaye mën ta am lu gën ay mbokkam gis nga yàlla bëgg gi bëgg mbokk tax gis nga doomu aadama su demee uti ji bu amee ay milliards su koy lekk ci ay mbokki jàmbur du ko saf dara faaw mu ñëw ba ci ay mbokkam ci ay bu ko ay jàmbur di lekk te mbokk bi gisuñ ko du ko saf dara faaw mu ñëw oto bu bees yére bu bees kër gu bees invité ay mbokkam pour ñu xam ne ah diw kat am na pour ñu góorgóorlu ji wala nangam kon gis nga ni mu fonkee mbokk moo tax man mënumaa am lu gën samay mbokk mënumaa am ñu gën ñaar ñi ma yàlla boole ci deretu Alaaji Abdoulaye Niass ñi ma yàlla boole ci deretu xalifatul Haaji Mouhamad Niass ndax li tax mënumaa am lu leen gën dama na Niass ñu ne Niass yaay yi dañoo jógee ci àll bi ñu jógee fu ne ñëw sëy si bàyyi rek ñoo ñu cuub bu bàyyi rocceekoo kenn ku ci nekk yàgg sa morom waa li waykat bi wax ki tax nga gën koo warta gën war naa tax nag nga ne ko jaajëf koo warta gën mooy sama nday man am na ñu mbokk ak nday ak baay ñooñu seeni doom dañ may sukkal di ma raamal man te samay mag lañ seen sama yaay ak seen yaay ñoom ñoo bokk nday ak baay seen yaay aussi tamit mag sama yaay bu ñëwee dañuy futteeku sol ay tiset di ma sukkal di ma xam nga lu waral loolu du sa nday ga de bu doon nday ga rek la seen fa ndey sama ndey sëyi fa nañ mel lay mel waaye alaaj Abdoulaye Niass mooma cuub hmm. kon ki la cuub boo ko boo ko yemaleeg leneen rek bi wallaahi dof nga boo ko yemaleeg leneen ki tax nga gën koo war ta gën ba mu lay sukkaleeg di la raamal boo ko yemaleeg leneen rek dof nga ki tax ma gën nag mooy sama papa Sidi Mouhamed Habib ñas bit daf ma defal lu gën a jafe lu waajur defal ci doom yonent bi sallallahu alayhi jàngale mu defal ma ko utal ma ndey ju baax premier fondement mooy mu utal la ndey joo xam ne ëllëg boo màggee doo rëccu ne su ma yëgoon du ma am ndey ji ñaareel ba mu tuddee ma tur bu baax muy Sidi Ahmad Tidiane Serifil Fatimi dégg nga ko nam ko waxee ñetteel ba mu jàngaloo ma ñeenteel ba mu yar ma ñeenti ku ko def ci sa njaboot njaboot ju bon rek lañ koy def ci moom doo xam sa bàyyi lim def ci yow mu def ko ci man Cheikh Ahmad Tidiane Serif dafa dagg sax la mu waroon a wax xam na parce que kilifa du wax ci njabootam lu bari parce que parfois day bëgg wax ci man sax nit ñi toog ma ne ko dama am ay doomu baay bu ma raylu génn dem ba ko fa moom dana xam li ma ko wax waaw su bëggee wax ci man yenn yi dama naan ko dama am ay doomu baay génn dem parce que këru sëriñ day yàgg voilà mi ngi noonu voilà al ishaara du takki fii li ma naqala day yàgg waaw duñ bëgg sax muy wax ci ñun ba muy wax sax sànq loolu ci ñun vraiment dama damaa soke dama boo gisee nekkuma dama waaw dama gêné wu parce que bëgguma di defal sama waajur mu koy wax ndax li ma li ma ko defal defaluma genn wàll gi xaram tudd bu ko neexoon utal ma ganaar ray ray ko boo légee muy am mbañ su ko neexoon tuddee ma tur bul ma xool bul ma xool sax bu ko neexoon tuddee ma bul ma xool waaw fu ma romb ñu ne bul ma xool ak ne mooy bu mooy bu kenn xool su ko neexoon utal ma nday joo xam ne ëllëg dañ naan ki ak ah, kii da ndayam ca baar ba la newoon mm-hmm. wala fa doon cagatu ji wala fa doon nanga ñu baal ma ci terme bi mm-hmm. yooyu yëpp defalu ma ko bu ko neexoon it bu mu juddoo màgg mu jiital français sama dënn bi mm-hmm. wala mu jiital lu sama dënd bi waaye dafa jiital alxuraan sama dënd bi jiital rënk ñu ci bëgg Cheikh Tidiane Serifil Fatimi keroog ba ma biñ ma mayee bee ci yoonu Faas bi ma ñëwee njëkk ko koo wax daf ne ma ma xool sa carte d'identité ma jox ko mu xool tuur ay ronkañ dama Cheikh Tidiane du nit ma ne ko ah mu ne ma damaa laa bon gént gi waaye def na ma woon boo amee ñaar fukki at ak juróom-ñeent da nga ko ziare ko kii juddu waaye bu amee ñaar fukki at ak juróom-ñett dana ma ziare si. barke Cheikh Tidiane yi 28 ans beneen biit sama papaay wax de mu ne ma des na di nga toogaat ñaari at yoo xam ne danga toogaat at ak genn wàll jàpp ñaari at yoo xam ne ci ngay demaat ziare ji ko ma demaat ziare ji ko ànd ak Cheikh Omar sama wëllëre bii nii. ci laa amee trente ans net muy deux ans kon ñun duñ mag liñ doon maama maam Khalifa ñëw ak mbaaxam rek yàlla ñëw ak mbaaxam rek waaye ñu duñ dara ñun toqante lu ma nii wër dong lañ woon gënuñ kenn kenn gënuñu loo xam ne comme laalaan nga raxasu te boo dee it daanaka li ñuy njëkk a def it mooy loolu rek nañ ko gaaw a raxas yóbbu it kon kuñ naan doo dara ngay fuññi fuññi doo dara nit ko am ay milliards mu ngi nangam kon suñu waajur mënuñoo moom loolu duñ ci duñ ci laaj nga ñu mais mënuñ ci développé waaw li ñu ko defal ci ziar bi yàlla xam na ne sax xëy na bu ngeen seelul caméra yi waaye maa ko okk waaye du lu du ma bëggoon mu wax lépp xalifa bi it yéen a ko déggandoor ndaw lañ ci kër gi waaye ndaw nag li li bàyyi si waxoon benn kilifa ñooy naa diw ana diw kaay wax ana diw ah, demal toogee ne bàyyi na ko ah ndaw kenn nag man ndaw yàlla laa waaw li li bay lekk bay cib cib moom la xar lekk na mépp waaw ñun fa ñu ci yàlla daanaka ña fa yàgg bëriwut kon kon kon teelal rek nga wax ndànk ñu déglu la waaw ñu ni loolu la ñu tontu rek maanaam duñ daw kenn waaye nag ana ana lay show man la man la moom du man anta anta walaay fanta waaw moo tax daal nañ gën a bëgg topp waajur yi gën leen a sonnal gën leen a safoo gën leen a bëgg ndax euh, tubaab yi li leen gëm lu dëgg de nit amul lu dul waajuram waajur moo gën njëkk nga ut benn sëriñ sëriñ bu la wax mën na laa ñaanal te respecté woo sa waajur ba ci man su ma la ko waxee waxuma dëgg soo ma joxee sa alal te respecté sa waajur ñoo na ma ñaanal ma ba mbaam naaw sa aaju du faju ndax la say waajur daj ci yow bu ko sëriñ bi dajoon ci yow day dee moom far ñeme ngaa ñëw ci sëriñ bi cëpp cëpp ci moom tuur ko ndox kabine ko ñeme nga ko ñeme woo ko da nga ñëw sukk ci suuf moomu tëfli la sa waajur nag cëpp cëpp nga ci kawam tuur ko ndox kabine ko def ko lu ne mu muñ ko ku jënd kuus yi xaw koo rey ñàkk nelaw guddi yi xaw koo rey ordonnance yi xaw koo rey ngénte xaw koo rey yeneen ak yeneen sa yaay neuf mois yi xaw koo rey ak yeneen ak kon nañ fonk waajur yi ñu jubluwaat ci waajur yi bëggaat waajur yi toppaat waajur yi waajur sax bëgg mu di sori ndax su ma ciy wax sax voilà. mu waaw. ñi nga xam mm. mm. ah ñooñu nag moom dama am ñëwanti ci ñoom ndax li gën a métti mooy tëj say soxna tëj say doom tëj sa sëriñ tëj sa kër tëj say njaboot dem ci réew moo xam ne xamoo fa kenn degré sedd bi daan am Sénégal bu amee da nga sàngoo ñetti mbàjj duubulam duubulaatam nekk ci réewu jàmbur moo xam ne danga koy jéem a accepté ngir am loo indil sa sa sa réew. sama benn taalibe modu Modou daf ma yónnee démb 3000 francs wéef mi ngi Espagne maa ngi koy nuyu ne ma sëñ bi Covid bi moo jàpp ñëpp waaye yàlla xam ne ni. ma ne ko la sëñ Fallou waxoon laa lay wax dafa am ku ñëw jox ko ñaar fukki junne ci jamono boobu am ku ñëw jox ko dërëm mu jël dërëm bi fóon jël ñaar fukki junne yi sànni bëkk nekk bi for borom ñaar fukki junne yi yëf yi jaaxal ko mu ne ko sëñ bi lu tax ma jox la lu gën a duul lekk jox nga sànni ko ci bëkk néeg bi jël bu kii dugal sa poos ma ne ko mu ne ko kii jox ma dërëm damaa xam ne lim mu yor yëpp la miraas jox ma ko yow nag yow mi ma ñemee jox ñaar fukki junne am na la fa des kon ki la jox trois mille boppam la miraas ki la jox cent mille ki cinq cent mille du la gërëm parce que jox parce que am nga lu ëpp loolu seq nañ lopp loolu ki ma jox 3000 yi nag kooku laa am ñëwante ci moom ndax li tax ma am ñëwante dem ba bitim réew mën a yónnee mille francs kon nooy def sa njaboot état bi nañ dimbale moodu moodu yi ci ay sursis yu ñu def réew ak réew ñu am ay compagnie yoo xam ne këyit yi dana yomb liggéey bi dana yomb respecté wante bi dana yomb Sénégal da ngay dugg ci réewam frontière yi fu la nekk nga koy duggee duñ la vacciner duñ la laaj foo dëkk duñ la laaj dara nu la neex nga koy duggee ñëw léegi am carte léegi fi rek la boo demee Gambie gii nii bala nga am carte Gambie léegi da nga wax lu set bu njëkk da nga daan dugg rek am ko waaye léegi defar nañ seen réew mi soo demee Mali noonu même tuuti soo noonu soo demee feneen noonu kon moodu moodu yi sonn yoon sonn nañ bala maa wax ci li may wax ci ñoom damay wax li leen naqadi ci ñoom pour état dégg ko parce que bés bii bés bu ñëpp di déglu nit ki bala nga koo tagg waxal ko li ko métti te mënu koo wax te nga mën ko koo waxal kon ne leen état bi gëstu waaye it ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla fàtte wuñu leen de ñu ngi leen ñaanal yàlla ku ci nekk foofa na nga nangu ñett yi na nga nangu liggéey na nga nangu jaamu yàlla na nga nangu am yónne say mbok boo ko defee kenn du la raw ma mos bu ci dugg ànd ak sa xarit muy tox nga ne ko ma mos ci bu ci ànd ak xarit muy laal naka su dul noonu lii mandiloo nit ñi nga ne ko ma mos ci damay bañ a tudd tur publicité ma ma mos ci bu ci dugg ànd ak nit mu ne la ah ndaw si nang nga ne ko ah, ñu àgg ma mos ci bu ci dugg ñetti bis boo ko defee rek noppi ngaa gisee mbokk waaw ma mos ci lan mosal ci ñetti yi ah, entreprise bee da am na liggéey waaye liggéey ba baax te yaa ngi xëytoog nga ne ko nañ dem ma mos ci mos goog baax na a ah, ñun de diw suñ mbokk la woon waaye dafa gaañu kat wala am ay problème waaye dañ ko war a cotiser nangam ah xaaral ma mos ci barkeelu mos ca baax na ah waaye diw. sëñ da sëñ diw kat dugg na fi murit nga tijaan nga xaadir la waaye jullit la a ah, dañoo bëgg ñu dem ziyaare ji ko ah xaaral ma barkeelu mos ci ñetti mos yooyu baax na ñetti mos yi it baaxut nañuy moytu ñetti mos yi bëgg ñetti mos yi jiim jiim nag yàlla mosal ñu ci lépp mooy borom kun kum kunal nga nekk kun te fam ne kun néew fa di kun kuni kon yàlla nañu yàlla kunal ñuy kunalaat di gërëm nag spécial sit internet yi ñëw te ziyaare bi tax leen a jóg di jiital Dakar instant Malick li tax ma koy jiital dañoo sekkilu raw ay tournée émission sekk nañ loolu maak moom jamono ji di ci teg Bachir wasaare TV wasaare moom wasaare mi dañoo bëri nag wasaare TV wasaare làmb ak yëpp daal waaw de ko sant moom it daaw lañ xamanti mu mu muy ku fonk kóllëre lool lool respecté ma ba du sigi sax xol ma yàlla mi ma tiim xam ne su may defal interview sax du ñeme du ma am ñeme na lu raw siggi xool ma waaye kersan sax da koy may lool maa ngi seedaloo yàlla ci lool bi ci des mooy fi ma ko fi ma ko njëkk a santee nag moom Bachir daf ma njëkk a jël interview damay wax da ngeen daan wax sama mbaax waaye tey dana wax seen mbaax ndax ñu bëri dañ naan journaliste yi ñoo yàq nangam am na ci ñu baax ñoo xam ne exceptionnel lañ ñoo xam ne nit ñi faw ñu leen xam ndax defara leen tax a am na tey ñu dem ci ay musique ngeen ba fa musique yi ñëw ci jàng yi kon faire force leen dafa mës a jël benn interview géejawaay mu génne na ma sëñ bu jël naa ñu bari mais xam-xam bi la yàlla may mënu ñàkk wax. ma ne ko ci naka ma koy peese ne ko ci naka mu ne mu ne ma ñun kuñ interview xam nañ foofu laay yem pare ci kon kooku ñemeloo na la. ci lu bari kon ñu ngi koy sant Bachir ñu koy sant passage bu bari bari bari bari di ci teg bëgg lu baax bu bëgg lu baax nag mooy bëgg Bàmba waaw ndax moom xam nga ko ñëw ne dafa maam Khalifa wala ku ñëw ne bëgg Baye wala ku ñëw ne bëgg Alaaji Malick wala ku ñëw ne bëgg Sëñ Tuubaa wala bëgg Bamba kooku kay bëgg lu baax la waaw am na ñu naan bëgg bëgg musicien nangam bëgg nangam te dam bëgg demuñ bëgg ñu baax ñi kon yéen yow amuñ sa fay bañ xamante ne quatre ans ci ren ou trois ans euh, mosoo ma tànkam lu ci dara ba nga yëgee siyaare bi dag na ma trois jours yi def lu jafe trois jours yi naa ñëw Kaolack maa ngi Kaolack danaa def lépp direct def ko ay interview sëñ bi ma yàlla naam nga ma laajuñ la dara danañ ñëw te yàlla tax ndax bu fekkee ne dañ daan seq yow interview tey nga am bés mënuñ cee ñëw jotul ñuy ñëw ci yow te mosul leen a ñii ma lim nii ñëpp mosul leen seq man interview ne ma jox ma ñaar dërëm mosul am mosul am kon seedal dañ leen ko seedal ndax mosul am mooy kii jël sa image di la ko maanaam àdduna bi xam la ba ñii mën laa aussi kooku amoo fayam boo ko doon jox ay milliards jàpp na nga ko waxoo dëgg di ci teg nag koo xam ne sama xamante moom yàggul de ci Coupe d'Afrique bi lañ xamante muy idaali mi benn sit moo ma doon interview ba site bi génne mu oom ne ma sëñ bi sëriñ si ma jël ak a bari waaye yàlla mi ma tiim xam ne barke sëriñ Tuubaa dama laa xool rek am ci cofeel mënu xaw ma lan la nag ma ne ko yàlla mooy def loolu ñu waxtaan yu bari luñ mënta wax internet mu conseillé ma lu bari loo xam ne su ma matoon su ma matoon mottaliwaat na ma suma ma mottali na ma ci lu bari mi ngi nii toog di ma di ma ubbil opportunité yoo xam ne xam nga li gën a jafe ci nit mooy mu jël la interview ba pare doyul ay nit wala diw nangam nga wax la baax la nga xam ci diw ba pare jël ay kilifa ci réew mi ñu ma mënta tudd di leen man na leen dem leen ngeen def ak diw émission wala dem leen ngeen nangam danaa ko wax bu la wax ko baal danaa wax yaa ngi dégg bisu mbégte la ak yeneen ak yeneen loolu dañ la ciy sant it ndax euh, baax man ta weesu baax dee man ta weesu dee nit ki dee ay jooy mënu ko indiwaat waaye faaw nag bu dee nag ñu teg ko benn cinq minutes dix minutes waxal ko yu baax yóbbu ko lu yàgg-yàgg dañ koy yóbbu waaye dañ ko teg wax yéen it lu mu yàgg-yàgg da ngeen di ñibbi waaye dinaa teg mbooloo mi seedeel leen yéen ñi da ci tegit mbooleem siit yu amoon yéen a ñëw te ñëwuñ ndax ñi ngi liggéey si duñ mënta lim te xam naa ne bu ngeen partagé lii ñoom ñëpp danañ ko jël dugalaat ko kon sant nañ ñëpp gërëm ñëpp bawuñ kenn bés la boo xam ne it ku ci ñëw yokkoo yàlla mi ma tiim xam ne da nga maa nëbbu sa bopp innamal a'malu binniyaatin fa laay jee jëf yëpp yéene ko lal barke Cheikh na Tidiane ku ci yéene ba muy ñetti yoon ku ci yéene yéene bu dul yàq mbokk du tas dina lislaam du mooy yàlla te amoo ko ci barke Cheikh na ma dagg sama wéru Tidiane. parce que li tax mooy dañ ma cee woon ay surtout yoo xam ne ñemewuma koo wax barke Khalifa Niass ñemewuma koo wax man seex Niass ñi ngi ñi ngi sant ñëpp daal di gërëm di tëj. waaye nag di sant président Ousmane Sonko waaw di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal ndax ragal pété day xaneel wërsëg sama xarit la sama àndandoor la sama lépp la sama. sama sama sama conseil la conseil am la sama lépp di sant Badou Sonko mi nga xam ne moom la bokk ak ndey ak baay suma xarit benn bakkan ñëw na ci ngoon rek delluwaat moom moom moom moo jëgal moo jógee Ziguinchor taal otoom ànd ak délégation ñëwal boppam delluwaat ànd ak ay soxnaam ma sëñ bi Ousmane mënul ñëw mais man maa mën a ñëw indi fi ay teranga yoo xam ne kenn xamul nu mu kon sant nañ ñun ñëpp gërëm ñëpp gërëm képp ku fi ñëw. jërëjëf. guerre ba léegi nga euh, ah, bañ cee wax rek. waaw yi am na ñoo xam ne bind nañ ko ah. yi bind pour guerre ji ah man di bokkuma ci. waaw <laughs> man di bokkuma ñun daal ñun daal lañ doon guerre mag ñi geer geeral lañ ñu ko mooy tagg yonent bi tagg Cheikh na Tidiane yi wala tagg mag ñu baax ñi loolu nag bu la doyul cim guerre xam nga am lu am lu doy guerre defoo ko dem di defee leneen ñàkk fa ñàkk fayda la guerre bi gën ci guerre ñi mooy nañ dem jël xasida mag ñu baax ñi rek di ko jàng bu ñu xëyee waaw bu ko defee rek jàmm am waa ji nag dégg naa lu français def mu def ko waaye daal ñun ñu ngi koy ñaan ci barkeb ziare bii bu mu ci wax dafa am ñoo xam ne yàllaa leen jox doole zahir il faut ñu koy nangu doole àdduna muy doole saytaan yi jox na ko nantin waajooj waaw jox na ko ko na moytoo dugg ci yooyu ndax Sénégal réew mi loo xam ne ni tubaab yëpp ñu ngi ñu wër pour coow am fi rek ñu daw di jël pétrole bi léegi yóbbu ñu nekk ay faqir nit nag maanaam bo bu la ñëpp di wër yow dawal ñëpp bul xarito kenn xaritoo ak sa sa sa sa réew rek na la doy waaw. jeex na kon li ma koy digal moom moom moom waa ji sàll na ñu dimbale te yàlla tax bu mu dugg sax ci coowal ay poti nag xaw ma kooku daal moom waaw xanaa jul di ko ñaan rek daal kooku daal kooku koo xam ne daal moom yor na loo xam ne mën naa tukkal àdduna xam nga ñoom ay seytaane lañ yàlla da leen da leen jaay jaay goo xam ne jox leen opportunité yoo xam ne nii. waaye yàlla yàlla muus fa laay tëjee lépp bépp bépp jafe-jafe ak bépp lu bon ci seen kaw lay dellu. Euh, maa ngi déglu barki dem benn vidéo Baye ñas muy wax ni tubaab yàlla jox na leen ay source ay reçu yoo xam ne mën nañ ci tukkal àdduna waaye lépp ci lislaam lay dellu. bu lislaam geme seen boppu nekk benn lépp ci lislaam lay dellu. dama ko déglu fi barkaati démb samedi passé. ci caméra ma allahu akbar waaye ji damaa ma ne ko xoolal tubaab yu xaj yi di xeex yor ay nangam. dañoo ñëwoon pour xeex l'islam indi fi corona indi fi nangam corona bi benn affaire rek ku taxoon jug de aj gi lañ gisoon ne jullit ñi ni ñuy ajee dafa métti te mën nañoo dem ba seen seen footballeurs yi star yëpp ñu ngi tuub ñi xam ñu ngi tuub ñu ne nañ ko arrêté arrêté boo xam ne nii aj dootul amati boo xam ne alal ñu ne kon économie ñu ne kuy aj kuy benn bi da nga bi da nga vacciné jaar fii da nga jaar da nga nangam boo daan dagg bee deux cent cinquante pertuñ yow yaa perte yow mi ñu aj tere aji ji kon l'islam lañ doon xeex far yàlla na leen xaar leen nag ñoom ñaar réew yi gën a jege yàlla na leen aca xeex leen seen biir ngeen bàyyi l'islam mu dox kon ñun nañ doxal te bàyyi leen Macky Sall dimbaluñu bu ci wax bu ci bu ci jëf bu ci laalee wax naa li ma xam nag gaa yëpp nag okal nañ la fenn nee na lu nee nañ lu waa ji wax mooy eh, ki nga xam ne maanaam bëgguma tudd turam sax ndax yàq suñu réew lépp lu wax nga wax ko dimbaluñu bu ci li bokk bu waxee ne ko man damaa jënd ay toni glace pour sotti ko mu sedd bëgguma dara ay jàmm laa bëgg ndax sama réew réewut ku amul doole da ngay moytoo tooñ voilà.